si si coowal politique Sénégal ndax politique Sénégal métti na bari na histoire bëri na coono daal man daal ba tey loolu ump na sama sama xel mi lan lan ub na sama xel mi lan lan mooy euh, li la motiver li la pousse ba nga ne xaaral teranga yi ma amoon yëpp Nations Unies ma bàyyi ko dellu si Sénégal politique pour nekk cinquième président de cette république. waaw soxna Oumou euh, Sénégal rek ka ma ko jaral Sénégal moo ñu jaral bàyyi lépp privilège amul sens pour ñun bu Sénégal soxla autorité boo mën a am ak loo mën a am bu Sénégal soxla danga ko fay bàyyi te ñëw wuy si à l'appel du peuple je pense que Serigne Moustapha encore une fois gàcce ngalaama bi mu amee xel ak xalaat ni Sénégal xam naa koo xam ni bu ñëwee dina dimbali Sénégal dina appliquer ay connaissances am ay lépp lu nga xam ne liggéey na ko à l'étranger pour andi ko pour liggéeyal réew je pense que la seule motivation que j'ai mon seul engagement mon seul combat c'est le Sénégal leer na mais bu ma nattee diir bi nga toog bitim réew yàgg na lool daanaka mot na ñaax fukki at may xool loolu ma ci yàgg ma ne ah kii moom mbaa moom xamante ne sax liy riir ci réew mi parce que réew mi nag dafa soppeeku de boo xoolee ñaar fukki at ci passé lépp a soppeeku ndax yow defuloo li tubaab naan embourgeoisé wu ci si ay privilèges Nations Unies ba léegi xamatoo naka la dëkk bi di doxee ak. Euh, du man kese sax sénégalais yu bëri ñoo am sentiment boobu ndax euh, dañu jékki-jékki rek gis le premier octobre bi donc motagul sax weer bi la ñu bëri découvrir yi waaw euh, tooguma 18 ans te ñëwuma Sénégal wala vingt ans sama ay xarit personnel ñu ngi ni toog Sénégal mosuma toog deux mois deux mois yoo xam ne ñëwuma Sénégal ak fu ma mën a nekk ci àdduna bi je crois que wax naa la ko démb benn yoon laa mës a toog pendant ces vingt ans benn yoon laa mës a toog six mois te ñëwuma Sénégal te ci période Covid bi la donc li xew Sénégal xam naa ko damay waxtaan ak nit ñi je vous ai dit que moi je suis un géographe et le géographe c'est par excellence que celui qui connaît le terrain et qui maîtrise l'espace amul fu ma demul ci Sénégal wax naa la ko léegi j'ai fait mes travaux de recherche sur la revitalisation des vallées fossiles dans le Ferlo amul fu ma demul dans le Ferlo Barkédji Linguère Yang-Yang euh, àll boobu yëpp dem naa ko Ranérou ba Sémé ba Bakel pour remonter la vallée du Ferlo pour def des études d'hydrologie pour xool ba xam nan la ñuy dimbalee le ferlo pour ndox bi ñëwaat fa et ça aussi un problème dinañ ci ñëwaat sur la maîtrise de l'eau c'est un problème Sénégal on ne développera jamais notre agriculture si on ne maîtrise pas l'eau ça c'est important <laughs> donc wax naa ni damay ñëw Sénégal su ma ñëwee damay dugg ci damay dem seeti samay mbokk damay am naa ay xarit dañuy toog di waxtaan di seeti euh, di saafonte ak nit ñi di discuter sur les problèmes du Sénégal xam nga kañ la Sénégal di gën a intéressé boo nekkee bitim réew chaque jour boo yeewoo balaa ngaa naan sa café da ngay connecté wu internet pour xool lu xew Sénégal je pense que waa diaspora bi it maa ngi leen di delloo njukkal nekk ci biti sa xel yépp nekk fii ci biir loolu moo dal ñépp donc lépp lu xew Sénégal xam nañ ko di wax ak nit ñi di échanger ak ñoom di liir li xew ci dëkk bi mais aussi di ci dugal suñu loxo ak suñuy xalaat donc loolu Alioune xamul lu xew Sénégal ay naxee mbaay la xam naa bu baax a baax a baax tous les secteurs li fi xew incha allah xam naa ko. waa naxee mbaay bi de moom ni ñu ko waxee moom mooy gëjoo fi ndax ñi fi gëj moom xamatuñu naxee mbaay. <laughs> léegi ma ko doon wax sànq ba tey ne la. sa sa dikk ci langum politique bi dafa bett ñu bëri même kam kàngam yi nga xam ne